صلاة الله ren tey dañ fi ñëwoon fii ci ma Madiabel pour euh, def fi benn réunion boo xam ne daf ñuy permettre ñu mën a waajal li nga xam ne mooy gàmmu Médina Niassène bu Kër ma Madiabel donc euh, ndaje boobu nag ñu ngi ko defee ci mairie ba Euh, ñu waxtaan ak suñuy euh, service mais service aussi joxe ay jël wala boog jël ay engagement mais engagement yooyu noonu ñu ngi ko jëlee ci li nga xam ne mooy doléance yi nga xam ne aussi comité d'organisation bi teg na ko ci taabal bi te jàpp nañ ne am nañ yàqin ne véritablement engagement aussi yi nga xam ne moom nañ fa jël soobee yàlla dinañ ko mën a matal incha allah. na service yu absenté naka nga def ak ñooñu seen engagement. waaw am na service yu absenté bien entendu mais dañuy fàtte rek ne d' abord am na service yu bëri yu yu teewoon yu jëloon ay engagement euh, ñi nga xam ne aussi teewuñu euh, gëm naa ne aussi ñoom it euh, li nga xam ne moom la comité d' organisation di xaar ci ñoom dinañ ko matale parce que wax naa ko man personnellement en tant que autorité administrative également dama leen di engagé vraiment que ñu ñu matale li nga xamante ne li mooy bëgg-bëgg comité bi mais ak lu mu ci mën di doon rek jàpp naa ne ñu teew ak ñu bañ a ak ñu ñàkk a teew euh, fexe ba nga xam ne gàmmu bii nii dina nekk gàmmu bu mucc ayib loolu moom suñu objectif la lay doon ñun ñëpp ñun ñi teewoon tey ak ñi nga xam ne teewuñu kenn ku nekk ci domaine bi nga moom suñu objectif bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy jàppale comité d'organisation mu am gàmmu bu mucc ayib incha allah. ci continuité réunion bi foog naa ne def na ñetti at ren jii nii man may présider euh, réunion préparatoire gàmmu bi mais chaque année également dañu gis ne euh, raxab si dafay insister ci voie de contournement bi moo taxoon ren nag ma ne jot na ñu dem xool ànd ñu xool voie de contournement boobu ñuy wax. nu mu mel lan mooy jafe-jafe yi ak lan wala boog fan nañ war a mën a teg suñu loxo ba nga xamante ne nañ mën a saafara euh, jafe-jafe bi nga xam ne moom moo nekk ci voie de contournement bi nga xam ne dina mën a permettre euh, bu bës ba jotee nit ñi mën a ñëw euh, fekkee bës bi bokk ak ñun bës bi te du am benn gàllankoor mais lu jéggi loolu it dina mën a permettre aussi dëkk bi nga xam ne mooy Kër Madiabel nit ñi mën fee dugg di génn nu mu leen nu leen neexee te du am benn kon du am benn jafe parce que bu fekkente ne voie bi nga xamante ne mooy euh, euh, wala bokk yoon bi nga xam ne moom la ñëpp xam foofu bu xawee xat nit ñi dinañ mën a jël contournement bii nii nga génn dem kër euh, dem wàkku ngu na wala doxe say soxla ci yeneen bërëb yoo xamante ne di nga fa mën a dem te doo am benn gàllankoor ci ci dem ak dikk bi. sant nañ ci yàlla ñëw daje ci OTEP sous-préfet ci mairie bu Kër Madiabel waxtaane mbiram gàmm mi seen kër mu jabal gannaaw bu ñu sant yàlla dañu suñu kilifa yi dana ci Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye bi nga xam ne moo ñu sant liggéey bi ñun ak mbokk yu baax yi ñu ko àndal Cheikh Moustapha ngi nii taxaw ak mboolem président commission yi nga xam ne at mu ne ñëpp beesal seen engagement seen taxawaay pare pour liggéey bi gën a dem ci kanam tey nag uy si nañ monsieur le préfet ci mairie bu Kër jabel monsieur le maire moom itamit terale ñu teewe jotaay bi mu neex ñu lool ñu waxtaan wax nañu suñuy soxla su préfet déglu na ko ak service yi mu àndaloon ñoom ñëpp wax nañ ñu loo xam ne dal na suñu xel am nañu yaakaar monsieur le maire itamit teewaayam yokku na dara parce que déggal na boppam dal nañ ko wax mais déggal na boppam et que ñu ngi am yaakaar ne li ñuy yaakaar di ko xaar yàlla mun na ko déggal ci at mi fàttali nga tuuti ci sant waaw gàmmu Medina Niassène Kër Madiabel ñu ngi ci juróom-ñaar fukkeeli at ak juróom-ñaar ren damay wax ne du gàmm rek goo xam ne benn waaye moo jóg jàpp ko waaye Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla jagleel fayda tijaniya moo fi ñëw en 1949 gannaaw bu mu fi sampee rakkam Cheikh Sëñ Mbaye Niass ñëw taxawalaal ko gàmm te itamit duul gàmm ci bés bu dul gàmm déedéet gàmmuwaat gi muy def Medina la déplacé wu exporté ko trois fois indi ko fii moom muy gàmm ñi koy zikkaral ci Medina di ko zikkaral sëñ Barham radiyallahu anhu noonu la ko doon waxee donc lu mel noonu rek dafa exceptionnel ci titre yu bare bare loolu moo tax chaque fois bu ñu demee ba egg ci juróom-ñaar fukkeeli at ak juróom-ñaar suñu koy taxawal bési sant yàlla lay doon bési fàttaliku xéewal gi nga xam ne moom la ñu yàlla defal ca fam tàmbalee ba fi mu yegg si nii. waaw di sant yàlla bu baax euh, ci li ñu fekkee bés bi euh, di feddali colère bi nga xam ne nii dafa am. sama diggante ak kër gi mu jiitu man sama juddu parce que am naa rakk boo xam ne ni euh, Cheikh Serigne Mbaye Niass ko tuddee loolu relation wu sama papa ak kër gi la donc loolu dañ koy fëddali fu ñu toll ma yàgg ñëw ci gàmmu gi euh, di fi fekkee di ci dugal sama doole ba yàlla dimbale ma ma nekk maire ñu am ci taxawaay bu rafet donc su ma nekkee maire nag lii nga xam ne nii taaru Kër ma Madiabel la doole Kër ma jabel la lu euh, luñ ci def xeb nañ ko. moo tax lépp loo xam ne ni ci suñu mën-mën la dinañ ko def muy ci biiru mairie bi wala muy ci biti muy ci mbiru wér yaram bi muy ci mbiru hygiène bi muy ci mbiru santé bi comme je dis mbiru éclairage public bi lépp loo xam ne nii mbébét nañ ko fa lu ci suñu euh, mën-mën dinañ ko ci def liñ ci mënul dinañ ko jéggaane pour indi ko pour taaral bés bi ثم السلام فطرى